di nuyu rakkam yi yëpp di nuyu wéjuram yi mu fi am yëpp di nuyu rakkam yi yëpp itam te di leen xamal ni e, njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine yëpp ñu ngi leen di nuyu ci turu Serigne Moustapha mën nañoo wax ne sax ni ñu ngi leen di nuyu ci turu ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha ndaxte ñun fu ñu dem mën nañoo wax ne moom lañ fa demal ndax Serigne Moustapha fu mu dem moom la fa demal. moom ci bopp it moo ñu woo ba ñu ñëw mu ni fu ngeen dem maa leen fayal oh. na ko Seex Sidi Muxtaar di fa wax bi nag am nañ ci mbégte wax dëgg yàlla ndax ni ko waxee du hasard ginnaaw sëriñ Bara dafa doon ñëw fii ah alaaji alaaji Serigne di fi taxawal bés di fi taxawal bés di fi taxawal bés ba bis boobu ñu jël ko tuddee ko Serigne Bara kon yaakaar naa ni ñi mujjee ñi mujjee ñi mujjee ñi mujjee nañ koy waxeeti sax ñi mujjee puso bi defe naa réerewul ci ñoom mujjewul puso bi mu réer waaw tudde na dégg nga sëñ Saliou nee na tudde na ko doom dëgg la kon tudde na ko doom eh, sëñ Sidi daf doon faral di wax ni comme comme lii sëñ Seexu naa def nii tey taxawul ci gàcca ndax seex sëñ Sidi Mokhtar daf doon wax ni ki taxaw ci gàcca mooy ki nga xam ne danga naan sama maama def lii ci sa ndijoor ñu ne ah kii maama ma fi man nga gestu sa càmmoñ nga ne sama bàyyee fi def lii ñu ne ah kii bàyyee ma fi man nee na boo xoolee ci sa kanam néew maa fi def lii yaa ngi taxaw ci gàcc te dëkk bi ku fi dugg ku fi dugg doo <coughs> sëñ sëñ seexu naa dina wax ni maa fi def lii kon yaakaar naa ni ak léeg léeg léeg kon yaakaar naa ni moom la sëñ Sidi saa doon wax mm-hmm. moom jaaram wàcc na mm-hmm. kon nag dañu koy gën a ñaanal dañ koy gën a ñaanal ndax ñaan du doy mm-hmm. te itam soreegul ndax yëggagul fa mu jëm kon nag dafa laaj ñu gën koo ñu gën koo ñaanal ndax sëñ sëñ Mbay Jaxate day wax dafay wax dafay wax ni dafa am lu sëñ Mbay Jaxate di woy su fekkoon ni moom sëñ seexu naa da koo def kon kenn du ko wax mhm. liñ ko wax fii kenn du ko wax sëñ Mbay Jaxate dane bul damoo sa jëfi ndey bul demoo sa jëfi baay yow mii kat jëfal ba sa ndey ak sa baay demoo sa jëf bu demoo woon jëfi alaaj sëriñ Géey wala jëfi waajuram kon du fi def dara nun taalibe nun murid yi ñoo ngi leen di dénk ragal yàlla ñoo ngi leen di dénk jaamu yàlla ñoo ngi leen di dénk nangoo liggéey ñoo ngi leen di dénk booloo nekk benn yi ngeen bëgg yépp def fii ñëw gis nga fun nit toog toogal fa sunu borom tamit dëgg ci yow sunu borom dana la fekk fa fii nii xaw ma kañ la de xaw ma du neenu fekk xaw ma duñ fekk waaye lépp a fii ñëw njogomaay ba ma fay dem ñi ma la ngi nii fa lañ dëkk fekk mu fa lenn te ba ma yegsee suñ motulaa ba mu fa jëkkee ñëw daf ma ne boo fi toogee lépp dana la fekk lépp fa ñëw fi mu nekk nii. amul lenn lu ñu wuteeti loolu nag moom lañu fekk fii itam kon nag ñoo ngi gërëm ñëpp ñoo ngi sant ñëpp sëriñ tàkko ñoo ngi dellu di tuub di di di jéggulu te di la ñaan yàlla may la fan bu gudd yàlla may la wér di ñaan sañ seexu naa yàlla may la fan bu gudd may la wér yow ak sa rakk yi ak sa njaboot bi nga nekkal fii yëpp yàlla yàlla boo am gàcce ci ñoom ci barke sëriñ Tuuba